ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء يُعِدُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ تودعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وهو محسن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين صدق الله العلي العظيم Allah subhanahu wa ta'ala de nous a réservé bon, cette occasion euh, pour être ici avec vous au nom de la République islamique d'Iran et avec tous mes collègues euh, des différentes euh, organisations et départements et ambassades de la République islamique d'Iran à Dakar, ici, avec vous. Je vous remercie sincèrement euh, pour... Euh, bon, nous a donné de toute façon en réalité cette chance d'être aujourd'hui bon, avec vous. Et bon, nous, en réalité, les membres de la même famille islamique, aujourd'hui, ensemble, tout ensemble. di gërëm kilifa gi di koy sant di rafetlu tey waxtu boo xam ne nag daf ko jégal waa kër Iran république islamique d'Iran jégal ko ambassadeur ak délégation boo xam ne nag ñoo fu teew di rafetlu li ñun ñëpp ay mbokk lañu ndax ñun ñëpp ay jullit lañu loolu mu ngi koy rafetlu bu baax. And uh, bon, euh, moi-même en réalité trois fois je suis venu ici euh, à Touba mais cette fois-ci spécialement pour euh, bon, venir ici pour, euh, bon, euh, en réalité, euh, vous féliciter euh, pour euh, votre place bon, assez précieuse, votre rôle bon, assez précieux en réalité dans la société islamique du Sénégal et aussi bon, dans le monde, le rôle que les gens euh, comme vous bon vous avez euh, en islam alhamdulillah euh, di rafetlu tamit di wone ni tamit bi mooy ñetteel tukkiwam di ñëw ki dëkk bu tedd gi dëkk boo xam ne nag alquran kese moo fiy jàngal dëkk boo xam ne nag l'islam lañ fi taxawoon l'islam tamit la ñuy jàngal loolu bu fa jógee tamit di rafetlu tamit nee dafa ñëw di nuyu kilifa gi nuyu boo xam ne nag taxawaayoom ki l'islam taxawaayoom ki euh, société taxawaayam tamit ci àdduna bi yëpp taxawaayam dañ ko rafetlu fu mu nekk donc ku am taxawaay boobu tey ñoom dañuy déplacé fu mu munti nekk ñu ñëw ñu nuyu kilifa boobu koo xam ne nag jullit yi yëpp la fi toto toogal alors notre euh, toute euh, sincère félicitation euh, notre cher frère éminence monsieur le khalife général euh, pour euh, bon euh, votre euh, place euh, bon, actuelle et euh, bon, vous en tant qu'un euh, défenseur de l'islam en réalité euh, quelqu'un qui travaille, vous, qui travaillez pour l'unité de l'Oma islamique, pour nous, c'était une occasion très chère aujourd'hui d'être ici unum de la République islamique di rafetwaay toogaay kilifa gi di wone ni tamit kilifa gi toogaay bu mu am toogaay bu rafet la ñin am nañu contentement ci loolu te ñu ngi lu loolu di koy ñaanal Yàlla may ko wërgu yaram toogaay bu mu toog tamit toogaay mu doon toogaay boo xam ne nag jullit yi yëpp nañu njëriñoo ci toogaayam tamit donc loolu day wone ni rek ñoom ñu ngi koy gërëm bu baax fu ñu munti nekk rek ñu ngi gërëm kilifa gi di gën a rafetaay toogaayam euh, J'aimerais bien aussi remercier à notre cher frère, mon collègue, son Excellence, ambassadeur Issa Mbakeg, eh bon, qui nous a de toute façon aidés pour être aujourd'hui ici avec vous. nee na mu ngi gërëm di sant di rafetlu taxawaay Serigne Ishaq Mbacké euh, tànk yu mu dox tànk rafet ba tey ñi mun nuyu ñëw ziyaare seeni kilifa gi mooy seeni sàng mooy koo xam ne nag moom la ñuy xool mooy suñu roykaay tey mu ngi gërëm sëriñ Isxaaq ci tànk boo xam ne na dox na ko ñu mën a ñëw dem ziyaare kilifa bu mag bi ak kilifa bu tedd bi lui euh, en tant qu'ambassadeur euh, bon qu'il était en Iran pour longtemps alors il est moitié iranien moitié sénégalais <laughs> neen di rafetlu tamit di wone ni tamit moom nekkoon na ambassadeur moo toogaloon Sénégal ki Téhéran donc loolu amoon na ay at yu bëri yu mu defoon foofu léegi ñin bu ñuy xayma moom dafa den di kenn benn doomi aadama nekk ñaari nit benn xaaj bi mu nekk sénégalais beneen xaaj bi tamit mu nekk iranien. Je suis venu à la tête d'une délégation forte comme vous voyez euh, les membres de la délégation euh, sont votre frère euh, ici au Sénégal. nee na dafa ñëw ak délégation bu takku délégation boo xam ne ñooñu yëpp sa ay doom lañu ñooñu yëpp sa ay taaliba lañu donc dañuy ñëw fii di lu sa taxawaay di lay ñëw di lay ziar. comme je vous ai présenté a euh, bon notre frère Chérif euh, Hassan Esmati. Euh, Bon, le directeur euh, du Centre culturel de la République islamique d'Iran et le conseiller culturel bon, de l'ambassade. nee na kii délégation bu takk bu mu àndal am na koo xam ne mi ngi toog nii ñu ngi koy ne Chérif Hassan Ismati euh, kooku moo toogal Iran République islamique d'Iran ci côté aada ak cosaan nekk tamit conseil kii ambassadeur de la République islamique d'Iran à Dakar. Heureusement, il a des bonnes relations avec bon euh, ici Touba avec les euh, bon frères nee na ñi ngi sant yàlla dafa am relation bu rafet ak ay taalibe ak ay mbok ñoo xam ne nag ñi ngi Touba ak mbok yoo xam ne nag ñëpp ñi ngi Sénégal. En réalité, nous nous sommes ici aujourd'hui bon pour une bon euh, relation, une coopération euh, pratique euh, dans tous les domaines. nee na tey suñu toogaay fii eh, dañu bëgg a ñi am eh, dugg ak gën loo xam ne nag loolu mooy coopération loolu mooy relation relation boo xam ne nag du waxtaan kese mais loo xam ne nag dañ koy jëf ñi ànd ak loo xam ne nag ay jëf loolu moo gën a rafet kii loo xam ne nag tey moo ñu àndi fii bon il y a euh, hujjatul islam cheikhuna mawlana euh, abbas mu'taridi euh, Bon, il est directeur euh, du Jamaatul Mustafa, euh, l'université du Jamaatul Mustafa euh, à Dakar. Bon, euh, certainement, euh, il aura une euh, coopération très active dans le domaine universitaire, bon, ici avec votre université à Touba, Inch'Allah. nee na ci délégation bi encore ànd nañu ak koo xam ne mooy recteur université Al Moustapha boo xam ne nag mu ngi Dakar mi ngi tudda Cheikh Abbas Moutatidi te di rafet lii tamit di wane ni lii tamit euh, recteur bi bu soobee yàlla euh, dina def mu am euh, relation entre université Al Moustapha ak université bu Touba fii ndax ñi mën a dimbalante ki wàllu l'islam Nous avons euh, notre frère l'ingénieur Nasseri, directeur général de Seniran Auto, grande usine Iran au Sénégalais, bon, euh, à Dakar, basé à Dakar, et l'usine qui se trouve à Thiès. Voilà, avec euh, bon, les taxis euh, bon, du Sénégal autour, comme vous voyez, bon, présent partout ici au Sénégal. ingénieur Euh, Naseri moo nekk euh, directeur euh, seen Iran auto mooy ay auto yoo xam ne nag Sénégal ak Iran ñoo ko bokk di koy defar nee na ñoom ñu ngi toog Dakar waaye usine bi mi ngi cees donc loolu day wonoo ni relation boo xam ne nag am na ci ñaari dëkk yi boo xam ne nag mooy Sénégal ak République islamique d'Iran donc kooku tamit ñëw na di nuyu sëriñ bi di nuyu kilifa bi di nuyu seen xalif général. En réalité, bon, ils sont ici. Euh, pour euh, bon, les coopérations, aussi l'ingénieur Nassiri dans le domaine industriel, dans le domaine euh, bon, du véhicule, etc. Bon, après, avec la permission de l'éminence, bon, il va se présenter. nee na kooku tamit ñëw na fi bëgg liggéey ki Touba donc pare na pour ànd ak ñoo xam ne nag ñooñu liggéey côté. Euh, côté ingénieur loo xam ne nag day yëngatu côté dem ak dikk kooku tamit ñëw na fi bu soobee si kanam tuuti moom tamit dina gën a waxtaan euh, mi ngi ñaan diggal sëriñ bi bu joxee ndigal rek moom mu jox ko ay nit ñoo xam ne ne mën na liggéey ak ñoom ndax dem ak dikk tamit mën a yomb ki diggante tuuba ak loo xam ne na wër na Touba Voilà, il y a à côté bon, notre frère euh, Abouzar Farouri, euh, mon adjoint, l'adjoint de l'ambassadeur. Euh, nee na ki délégation ñoo xam ne na tey dañu ñëw nuyu kilifa gi seeni sang bi euh, bopp na ku ñuy ne Zar Farouqi kooku tamit moo nekk adjoint ambassadeur mooy maanaam ambassadeur bu fu nekkulee tey kii mooy toog ki ginnaawam bon il y a notre frère docteur Nadimi Mahmoud Nadimi euh, le professeur de l'université en Iran est envoyé pour l'université de Anto Diouf euh, euh, bon, à Dakar euh, pour le département de la langue, littérature et la civilisation de Perse. Euh, ki délégation bi am na koo xam ne mi ngi tudd docteur Nadimi moom tamit Iran ñoo ko yónni tey mu nekk di dimbale université Cheikh Anta Diop waaye kii côté boo xam ne nag mooy côté littérature persane bi mooy euh, lakk luxatul farisiya bi foofu moom tamit dafa ñëw nuyu kilifa gi nuyu koo xam ne nag mooy suñuy xalif général. bon il y notre frère Moustapha euh, Hussein Zadeh euh, le conseiller économique de l'ambassade de la République islamique d'Iran lui en réalité il est venu pour trouver ici euh, les frères bon, qui vous travaillez dans le domaine euh, de l'économique, euh, bon, euh, de commerce, euh, bon, lui, il est comme conseiller économique de l'ambassade actif dans ce domaine-là. mi ngi tudd Hussein Zade moom ki ambassade bi ki côté koom-koom lay yëngu tey dafa ñëw Touba ak ndigal sëriñ gi mën a gis ay équipe yoo xam ne nag képp koo xam ne nag kii koom-koom lay yëngatu ndigal sëriñ bi bu fa nekkee mu mën a jokkante ak moom ndax dem ak digg bi njaay gi mën a nekk seen diggante saa bu ñu bëggee dem Iran ñi wol leen yoon yi lu ñu mën a dem jëlee foofu ñi indi ko fii wala lu ñu mën a jëlee Sénégal yóbbu ko foofu moom ki toogaay boobu la nekk. Bon alors euh, en réalité euh, nous ici euh, bon et à la tête, euh, bon, euh, à votre disposition euh, pour euh, bon, travailler euh, les deux côtés. Euh, bon, il y a bon, notre frère, il a parcouru en réalité en Iran. Il y a la ville sainte de Qom et bon jumelage entre bon, Qom et Touba. Euh, le deux, saints, les deux villes saintes en réalité euh, en Iran et euh, au Sénégal. Et, et certainement, il y a beaucoup de domaines que Touba pour travailler avec bon, l'Iran. nee na day wane ni tamit rafet di rafetlu li tamit kilifa gi moom nekkoon na Iran gis na taxawaay Iran mu am benn dëkk boo xam ne nag mi ngi tudd Qom boo ko xoolee day mel ni eh, Touba tamit ki Sénégal fii nee na day rafetlu lii tamit loo xam ne nag mu am jumelage mu am dem ak dikk ñaar ñaari dëkk yooyu ñu xam ki côté diine gi ak aada gi nu ñu mën a dimbalante mën a liggéey liggéey bu rafet loo xam ne nag dëkk bi tamit dina gis boppam ki loolu mooy dëkk bu tedd gi mooy Touba. Mon secrétaire eh, spécial Mohamed Mané Lui, il a fait ses études en Iran, à Mashhad. Alors, il parle bon, farsi très bien, il parle arabe et français et aussi wolof. <laughs> voilà, alors euh, nous, nous sommes ici, euh, bon, moi-même, comme un petit frère, euh, notre cher grand frère, comme euh, bon, euh, envoyé de la République islamique d'Iran. et la République islamique d'Iran, vous le suivez bien durant les quatre décennies. Il essaye de résister au nom de l'islam, même si les ennemis de l'islam, bon, ils voulaient bon, affaiblir l'islam, mais l'Iran, au nom de l'islam, il avance. Bon, et le développement aujourd'hui en Iran existe dans tous les domaines dans le domaine de l'industriel, dans le, de la, la, santé nucléaire, dans le domaine scientifique, etc. Et bon, si les ennemis de l'islam, ils sont fâchés, c'est à cause du développement, comme mon cher frère, monsieur l'ambassadeur, il le confirme. Et alors, euh, la République islamique d'Iran, aujourd'hui, il a montré qu'on peut être musulman et on peut bien développé. Alhamdulillah, nous avons de bonnes relations entre l'Iran et le Sénégal. nee na ñu ngi sant yàlla euh, Iran ak Sénégal am nañu relation bu rafet ak bu dëgër. Comme vous l'avez suivi, euh, Son Éminence, euh, en réalité, la visite euh, récemment effectuée ici au Sénégal par ministre iranien des Affaires étrangères, docteur Zarif. nee na yàgguloon ki ginnaaw tuuti mooy ministre affaires étrangères docteur Mohamed Jawad Zarif ñëwoon na Sénégal fii. alhamdulillah il avait de bons entretiens avec euh, bon les autorités sénégalaises et aussi président son excellence Macky Sall. nee na toogoon ak kilifa yi Sénégal dem si ñooñu président de la République. voilà alors euh, nous nous sommes euh, à votre disposition euh, et nous. Euh, nous souhaitons d'avoir bon, une coopération très serrée entre bon, euh, les différentes euh, villes iraniennes avec euh, Touba, euh, la ville sainte de Touba. nee na ñu ngi rafetlu suñu ziyaara fii di rafetlu toogaay boo xam ne nag kilifa gi daf ñu ko may di sakku ñaar rek ndax tuba ak yeneen dëkk yu sell Iran yi ñi mën a am dem ak dikk ñi mën a am coopération bu rafet. Je suis porteur des salutations, euh, bon, des meilleurs souhaits en réalité du côté iranien, du guide suprême de la révolution islamique d'Iran, Ayatollah Khamenei, et les autres pour vous, son éminence. nee na du lay nuyu du lay sant ci tuur yi koo xam ne nag mooy de la république islamique d'Iran mooy Ali Khamenei di lay sant di lay euh, Comme on, est, vient de l'Iran, il y petite chose euh, bon euh, artisanale iranienne. nee ci loolu tamit dafa am loo xam ne nag mooy euh, aada cosaan bi foofu Iran artisanal loolu dañ la ko jégalal comme loo xam ne nag du addiya sa waaye. <laughs> seulement bon j'ai bon j'ai pour que notre grand frère pense à nous et qu'il fasse la prière. pour nous tous. nee na lii daf la ko jox euh, saa boo ko xoolee sa xel dem ci Iran di leen di ñaanal tamit. macha allah ya allah ça c'est bon euh, quelque chose artisanal alors euh, euh, bon c'est un travail comme on dit miniature avec les pointures ça prend beaucoup de temps alors c'est l'Iran et la civilisation millénaire iranienne nee na lii dafa doon ci aar wala côté artiste iranien loo xam ne nag def ko ay jafe-jafe la te day jël waxtu lu bëri waaye eh, loolu la ñu ànd comme loo xam ne nekk mooy. waaye tey ñu ci doon xamee ko ci ñëwee rek am nañ ko tey. gof al an imrouz e xaqfe گفت این اهمیت بزرگ دیگه مخصوصا برای کل سنگال و خاصتا برای کوبا گفت بیانات جناب علی را شنیدیم ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ci jotaay bi. boo tashakkur mi ko ne waa az huda talabmi kone ke umru tulani wa salamat hambe kasani ke umaran ninja ina yat farme mun gën a xam suñu bopp mun gën xam fi eral àgg ci man si Vale, gote ishon namitone khayli chiz ha bige vari wakan khushhali ishon aslan bi mahdude. در برای ایران گفته که من نمیتونم چیزهای زیاد بگم ولی اگر در تاریخ نگاه میکنید جایگاه سلمان فارسی را واقعا میشه الگو بگیرید فارس سلمان سلمان گیر سیره که فارس بله بعد رابطه سلمان فارسی با پیامبر اون یک رابطه خاص هم بوده سو سره jóge ci gën ji di seere su rëy soo xam ne benn seere mënatu ko kawe گفت این جایگاه ویژه پیامبر هم حدیث های مختلف بیان کرده درباره همون سلمان فارسی gis nga Sëriñ Tuubaa diine rek la soxlawul dara diine rek te en nga boromam diine rek la Sëriñ Tuubaa bëgg اینطوری رهبرشون که رهبر طریقه مریدی سرین توبه ایشون هم کل تلاش ایشون اسلام dégg na ni ko gën ci mi dee waxee ne diine bu nekkoon ca Surayya bu ca aji woon itam Faris yi danañ dem jëli aji ko moom. Islam riwayat dari Peygamber nakal agar diine ak Surayya ambas eh, Faris yi nak di menyerang menjauh dari ne ko mu sax loolu moom pour diine la. waaye yitte ji nga xam ne gis nañ ci ci peuple iranien. kon buñ euh, doon mébét ci Iran rek euh, seen taxawaat bi bu rafet bi euh, saafara na loolu jooju jàngal bu baax الحق بالجزاء حق الشيء الأول أي أدي إيران ملاقات نتابع الحمد لله ملاقات suñu xool sedd na guy. délèlement charge. wax ci diggante bi je m'excuse pour na mu ngi jégalu. depuis yeexee ñëw ziyaara kilifa yi. loolu mu ngi koy jégalu trop trop trop trop nekkuloon fi cooxoon. nego lu e, e, e, nu doon xemmem ci ci suñu digganteeg Iran loolu seen jataay bi mel na ne faj na lépp suñu xel seet na ci biir. alhamdulilah rabbil alamin dégg nañu ni mu waxee ak ni mu ko yaatale eh, yi nga xam ne mooy yi war a dox suñu diggante lépp di li ci ëpp di di njariñal njariñal ci Sénégal. nga ne ko waaye nag sama nekk fii lu mu gàtt gàtt eh, eh, lu ma mën ci eh, feeñal Iran ci lislaam ak ci ci taxawaayam ñaari wàll yëpp moo xam diine la moo xam développement la lu ma mën ci feeñal loolu ak senegal ànd ko gën ko gën a ànd ak ñoom lu ma ci mën dinaa ko def Godek jak Marta Injabwa Sa Injabwa Sha Ishrata Ira Difai Hazira Ahlaman Jillan Kumabar Kumarum Ham Jaiga Ira Wa Nijibiha Ira Ahamiyat Ira Bayan Ira loolu sëriñ Isaax mi nga xam ne moo fa nekkoon xam na loolu ci man avant Ishaq ke Tehran boole Oran Shahid nekkoon na amatuma benn jot waaye bis li gën a bëri bis bu set dana déglu émission dana xool eh, Iran fu mu toll ma xam ko. <laughs> Kawsar rek Kawsar alam <laughs> Euh, ci fan yii rek euh, ci fan yii rek laay wax sëñ Isaaxa ne ko am na sama doom moo xam ne euh, ndax la loon jàngee ba am na licence am waaye dama ne il faut bu ma amee bu ma dama bëgg il fokk mu jaar si xom daa àggale jàng avec plaisir ne ko daraja yi suñu borom am yëpp di ko jox jaamam yi. su Sëriñ Tuubaa bëgg ci dara lu nekk abdulilahi xadimu li rasulihi bande kulabaje ba hadimi kay hamba Serigne Touba ha ƴiwe on hat adansa nena yalla yalla yeram ko